mais ñun dañu gis ne dafa jot ñu war a jóg ah changer li nga xam ne moo fi nekkoon wala gën ko dooleel pour mën a pour mën a gagner élection yi ah surtout luy jëm ci Mali surtout luy jëm ci diaspora bi mais tamit ci ci ci àdduna bi yëpp. incha allah daal euh, ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne. dañuy dañuy gis li fa xam xam ngeen ba ba pare li li xam Mali ak yenn dëkkee yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla saafara ko ñun xam nañ li ci jàmm suñu tolloo bitim réew di gis Sénégal ni yëf yi di doxee dañ xam importance bi nga xam ne si jàmm suñu gisee nag suñu suñu suñu suñu euh, benn candidat boo xam ne moom lépp lu mu woote jàmm fay laajte jàmm fay def euh, waxtaan bi sax ah ci boppam da ngay nitu jàmm la. te nitu jàmm moom rek moo mën a saxal jàmm fu fu nekk donc loolu rek lañ ciy mën a sànni comme kàddu di ko ñaanal incha allahu rabbi ci guddi 25 euh, février 2024 ñu am ndam lu rëy dès le premier tour mu nekk ndamu Sénégal yëpp. mu nekk Afrique yëpp. da ngeen xaar ci premier comme lépp comme ñu sénégalais ñu fa nekk ñëpp euh, déjà consulat bi ñooñu nuñ koy réclamer depuis ay pour mu mën a permettre. Euh, sénégalais yi ñu fa nekk ba ñu ñëwaat pour defaraat seen i ay passeport seen i ay seen i ay euh, carte d'identité mais tamit jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di liggéey luy wàll ci transformation li nga xam ne alimentaire bi ñu mën leen di jàppale ak fond fond euh, financement yi suñu doom yi nga xam ne tamit ñuy yeewoo foofu di am ay ay ay notes yu baax ñu mën leen financer ci bourse yi ah comme ni ñu yeneen dëkk yi di amee mais tamit transporteurs yi surtout ñi nga xam ne ñooy nekk di def ko ak euh, euh, Dakar ñu mën nañ jàppale ci sécurité bi parce que sécurité bi xam ngeen ne su ñuy wax développement dëkk dañuy wax ci sécurité su ñuy wax développement euh, ci naataango ci mbopp nit booma il faut mu ànd ak sécurité donc ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu jàppale gouvernement actuel bi déjà ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy félicité sax monsieur le président son excellence monsieur Macky Sall mais tamit ñu ngi ñaan yàlla. incha allahu rabi euh, monsieur Amadou Ba su moom ci boppam mu ñëw gën ñu jàppale te xam nañ mu ngi ci yoon yooyu moo tax mu gën ñu jox fit ñu ñu ne dañ koy jàppale mu gañee incha allahu rabi pour mu mën a jàppale Sénégal yi nekk ma urgence bi daal bi. urgence bi mooy consulat bi parce que consulat bi ci la mooy mën a faj diggante entre population bi ak état du Sénégal bokkul dara ak liggéey bi nga xam ne ambassade tamit doo koy def.